www.sunuker.com Ribari, yi FM Ribeiro. De Réveil Tribani. Sunuker FM FM fanweeri simili moo daal di bootu ci benn waxtu jaajëfal leen ci ànd beeg bi seen rajo Sunuker FM xibaar yi dikk ba cëg gi li fi gën a fës Ndeye Marie bokk na li gën a fës yi xibaar ak euh, njàmbe yi nga xam ne rek ñi ngi am ci diwaanu Sénégal rawatina rey gu métti gi ñoo nemmeeku ca euh, diwaan bi ci mujj rek mooy ca euh, diwaanu Cambérène ndaw sa waa ji nga xam ni rek fekk nañ ko ñu daal di koy jamate ba mu sonn wàcc ko ca oto ma daa ngeen teelu jàngat bi ak Cheikh Tidiane daa soxo ci yi xibaar buñ ca noppee daañu wax ak Abdoulaye Daouda Sow di premier vice président bu fédération sénégalaise bu football moom itam daal di ne addu jëm ci wàllum kan bi ak la nga xam ne rek moo daal di lamboo rawatina lim mën a indi ci biir économie bu euh, Sénégal ñaareelu xaaju xibaar yi ñetti ponk la doon xibaar bi ci réew les koy dooree toftal ci xibaar yi tàggat yaram di ëttu yëglekaay yi xëy tey moo koy bural mbokk yi ponk yaa ngoog bu ngeen taaxirloo ñu faram ko. xibaar yi ci suñuy kër FM. kaddu gi bàyyeekoo ci cœur de ville bu Kaolack janook Eli Birahim Ka ci li xam ne rek mooy ah, xarala gi nu ñu leen ko junjee ci bopp xibaar yi les koy dooree ah, foofule nga xam ne nag ab bijoutier ah, dëkk foofule ci Pikine tali bu bees ca li nga xam ne rek lan nañ koy fàttali ki samedi wàcc ko ci otoom ba mu am fa ay fan ci noonee ñi nga xam ni rek enquête bi mi ngi daal di am ci yoon waaye itam ñi nga xam ni rek ñooy askan wi nemmeeku ni rey gu ñaaw gi ñi nemmeeku ci diwaanu Sénégal bari na lool Cheikh Tidiane ci yaatal gi. anam bu ñaaw la ñu fekk Ndongo Gueye ñu rey ko def ko ci saaku plastique mu doon ab bëccëg bu diis ci askanu Cambérène nga xam ne foofu la ñu ko daal di sànni Doudou Sène di ab taskatu xabaar di dikkaat ci situation bi ni mel. on était là depuis ce parce que bi ñu ñëwee li ñu xamal mooy que ni corps bi indi nañ ko fi depuis euh, samedi tëj ko si benn oto donc oto bi ñu ko tëj moom moo nekk ne la oto bu giri bi donc depuis samedi mais nag euh, population Cambérène bi ñu nemmeeku mooy que ni def nañ jëf bu ñaaw parce que mbir mi xewewul fii feneen lañ ko reyee ñu indi ko ba fi sànnil kaw lol nak eh, ci lañu gis auto bi yàgg fi lol ñu tuju ko xol biñ ko gisé eh, lañu gis eh, ben corps bo xamné dañ ko def ci sac ray ko gor la ci lañu wo sapeur ak police ci lañu ñew récupérer corps bi ce matin après ñu yob ñambe sek di mbokk ci nongo gëy di dikkaat ci seede yi ak ligéyam bi nga xamantene li ni mel sax mo waral ñu daal di koy faat ci anam bi nga xamantene ne ñaaw na ne xaaral ñu dox ay jéego mbokk ak jéego xarit xol ba xam mais ça n'a pas abouti malheureusement après ci lañu woote waa police wa police wo len mom woo nañ ko tay ci suba ay 11 h ci lañu woone ne am na fu gis auto bi si lañ tal suñu auto daal di daw daal di ñëw fekk vraiment ah, drame bi quoi otoom la ndongo ndongo ba xam naa oto man mi dawal na auto bi pour wan rek ne ah, jege nañ vraiment ak vraiment amoon ay lien mu nekk ku baax nak ko xamni ne liggéey kese laa ko xamni ak jaamu yalla nekk soutien de famille mais voilà ray nañ ko pour zéro non côté bobu do mëna wax jëm ci comme police mu ngi def liggéeyam yoon am na ci dëkk bi mu ngi def seen liggéey dañuy bayyi ñom après ci fàttali ndongo geey nekkon na katu or ñu ray ko ci anam bu ñaaw waaye ci information information ñu mujj jot police daal dinay tek loxo ku mu mujj déggantel téléphone suñu kër fm Cheikh Tidiane Dansokho bu ñu di jógee ci diwaanu Kambareen dañuy li Sokone wax eh, ak taarixu ki di Mamadou Ousmane Deme foofule ci diwaanu Sokone waaye itam la nga xam ne jot na ko liggéey ci lislam ak ndongo yi nga xam ne rek doon na leen fa yor jàngat bi ak Roqee ñu gën ko xam ci El Hadji Amadou dem bu Sokone nekk sëriñ bu mag fii ci bim réew di Sénégal kii sax di Mamadou Amadou dem mu ngi dikkaat ak ñun ci cosaanam. Seydil Ahmad dem radiyallahu taala anhu cosaanam futa la ay kilifaam mo moo ko futa ñëw ñëw ci réew mi fii waaye moom mu ngi juddoo Casamance dëkk bu ñuy wax Mankano Ba mu ngi bokk ci région Sédhiou po bayam di dox be ñëw ci dëkk bi ñuy wax Njóobeen Gallo nekk wetu Ndofaan bi bayam di génn àddina moom mu ngi am juromi at mu nekk fa ak yaayam mbokki yaayam bi papaam wasi woon ne maanaam bu jotee jàng am na benn do bu baayam bu nekk guy suux ñu di ko wax Maam mor yasin Dem kooku la waxoon ne kooku nañu jël si Alaaji Amad Dem mu ko mu mu jàngale. daa di dëkk ci dëkk ba ñuy wooyee Sokone waaye nag mu ngi dikkaat ak ñun rek di ñu xamal ana nan la dëkkee ci dëkk boobee. li tax mu ñëw Sokone parce que borom xam-xam du def ci bànneexu bakkanam maanaam sookoon rek laa bëgg a dëkk wala Ndakaaru rek la ñoom dañuy tànnuloo yàlla mu def listixaar fan lay war a mën a dëkk fekk na bala muy ñëw Sokone jaar na fu bari jaar na Banduulu jaar na Gaage waaye muy def ay listixaaram ba yàlla woon ko Sokone ne fii la war a dëkk ci la ñëw nag maanaam mu ñëw dëkk si Sokone maanaam commencé di jàngale ñoom yëpp nekkoon jàngale ak xamle li nga xam ne moo di yàlla Amadou Mamadou Deme sax mu ngi dikkaat ak ñun ci dundinu góor gu mag googu. mu nekk ko mu am ay taalibe muy jàngale ay façon yu bari nag am na ay taalibe soose am na ay taalibe séeréer am na ay taalibe wolof am na ay taalibe halpulaar tafsir alquran sax soose yi mu amoon bu leen doon jàngal ci ci soose la leen doon jàngal dafa déggoon soose bu baax doon jàngale ci olof doon jàngale ci pulaar langue yu bari moom ma dem doon na ci jàngale waaye li mu nekkee woon mooy maanaam jàngale ak liggéey jaamu yàlla jàkka ja tool ya daara ja lii mosul génn ci cadre bi. mu nekkoon nag jàngalekat waaye itam bindkat bu mag a mag ba sax mu daal di bind téere bi ñu wooyee Diyaa'ul Nayraini tax rek kilifa yu mag a mag ci àdduna bi daal di ko koy nangul xam-xamam bu sell boobee tax rek ba réew bi ci Égypte sax dañoo demoon ba bëgg a jënd bi téere waaye nag bu ñu fàtte fii ci mim réew di senegal ay jàmbaari fakk tëdd lañu fi yor. Rokhaya Sall dañuy des ba tey ca diwaanu Sokone ak Amadou Mamadou Dem moom itam eh, di wax ci eh, œuvre bi nga xam ni eh, moom waajuram daal na koy bind ci li nga xam ne jëmale ko ci diwaanu Nisaani ci li nga xam ne rek mooy taarix ba itam la nga xam ne jur na ko ci ay jafe-jafe ay kàddoom ñu teewlu ko. Seydi El Hadji Ahmad Dem radiyallahu taala anhu mufassir kabir mais bala muy def tafsir bi bind na yeneen fànn yeneen matière bind na ci taal na ci yu bare mais tafsir bi la mujj def waye reey bi mu reey motax mu dafa xawa couvrir yenen matières nga xamné ne na ci du mo ñek tafsir tamit nak amna ño xamné ñi tafsiron nañu fek na fi yenen tafsir mais doyluwul ci tafsir yoyu parce que lamu maron maroon ko ci tafsir yoyu mu def tafsir bo xamné bi manam 20 volume mu liggé ci fanwéri ak ñet la sëgg ci tafsir bobu mu diko def tafsir bobu bi mu koy laata def dafa def li arab wax al muswadda manam dafa def plan bi ni mu koy defare bi mu defee plan bi plan bi pare mu am yaqeen ne insha allah bu ci sóoboo dina pare ci biir loolu nag ci la yëgal jullit ñi yëgal sëriñ si ne mu ngi soobu ci tafsirul quran loolu ba loolu amee nag maanaam mu jur coow sax parce que yàgg na depuis temps colon yi la ñu naan jarul mu di ci dugg parce que bu ci duggee du sotti mu indi réew mi gàllankoor mu indi nangam ak nangam parce que commencé tafsir àggaluloo ko parce que li jalaalay ni am ñi ko am bariwul jalaay lay ni ba mu commencé tafsir bi àggalu ko waaye taalibeem moo àggali tafsir bi moo tax ñu tuddee téere boobu jalaa jamanu kolon colon yi ñu ebal rahmatullahi alayhi Cerno Saidu nour mu bokk ak alaaji Amadou Dem ci wàllu askan waaye tamit nag mu buggaloon boppam alaaji Amadou Dem daan na ñooy tamit di ko seet si alaaji Amadou Dem di ko defal ay teranga mais bii yoon bi mu nekkee colon bee ko yónni bi mu ñëwee teraanga yi ko alaji Amadou Dem defal daf ko ne alaaji lii duma ko xoolagu parce que dafa am ci loo xam ne maanaam dang ci dugg mu indi coow mu yëngal réew mi léegi nag loolu lañ ma yónni naa ñëw seet li nga def lan la mu àgg ak alaaji Amadou Dem ci biir mais bi mu jox ko li mu jot a def waaye Cerno Saidu daf ko yër ba sa kanam mu yuuxu mu ne ko bi may ñëw dañ may yónni ndaw laa bu ñu yónni xamoon naa ne li ngay def dina baax waaye mu baax ba mel nii loolu moom yaakaaruma ko maanaam mu nekk tafsir boo xam ne daf ci boole tafsir zahir ak baatin moo tax mu tuddee ko jaamiu bayna ulumi taifatayni suñuy kër FM jeexal pàcc gu njëkk gi ak kii di Abdoulaye Daouda Sow di ki ñu toftal ci président fédération bu sénégalaise bu football moom itam daat ne joxe xalaatam ci li nga xam ni mooy kaan bi waaye itam lum ñu mën a jural ci wàllum koom ba ci sax lañu fa jot a dund ay kàddoom ñu teewlu ko. yoo nag xamoo football. jàmm ju ñu am ci réew mi. autant de plaisir est-ce que mën nga ko quantifier. tey bu ñu doon def ay meeting ñun politique yi. ñun politique yi rassembler bi lan la war a jural Sénégal. ci jàmm ju ñu am. xam nga ñu ñëw sax ci benn tribune gis Khalifa Sall. Mhm. gis barthelemy dia mu côtoyé euh, Seydou Gueye côtoyé le président Macky Sall. ñu mhm. gal Gueye Dany and mhm. Youssou Ndour ñep and dans mais lolu ah mais attention man mi administratif bi. mais moy préparer équipe bi malay wax ni gañi yi moo bu ñuy wax ni man yag na def li kenn musuma deg c'est parce que adamou dafa dem ci radio bi wax lu nga xam parce que nek nak nay wax ku nek li nga def ak li nga defut mané ko man à 2h du matin on me réveille on me dit que la veille de la finale par quelqu'un de la sécurité on me dit que la musique là da fay gêner joueur yi ñu nelaw ñu jog dem police jóge police dem baar ba musique Pourquoi kooku nga une ne mais équipe c'est un c'est un tout c'est un tout il y a l'administration il y a des gens qui se battent c'est les médecins L'équipe, c'est toute une délégation c'est toute une harmonie tey si suba gis nga bi ñu nekkee la message et c'est ça qui est pathétique et c'est ça moo tax responsable bu nekk buy def na def na def attention bi ma toogee ba bi ma ñibbee après la réunion dama gis message Sadio Mané mu envoyé message Sadio Mané su fekkonte ni man amoo fa njëriñ duma duma message bu message ma mu ma ngi dégg débat bu nga xamné mu ngi am mu ngi polluer fédération dama lay ñaan nga intervenir ci nek ba ñu fay ko ñu concentré aussi ñu match Sénégal Égypte et ça c'est très fort ce message là suma ko jotoon ci bir comité exécutif suma su ma ko liree foofu dana am ñu xamné Mouné nekkoon ay de Abdoulaye premier vice président de la fédération sénégalaise de football la ñeent simili ak ben ma ci ben waxtu ñu soobu ci ñaareelu xaaju xibaar yi. ñaareelu de xibaar yi dañ koy doore ak xibaar yi biti réew dañ ci de dalal soxna Roqe maa ngi lay delloo ziar waaye nga bu baax a baax. mu ngi doon diwaanu Haïti la ñu koy daal di ah, doore ak 6 yi nga xam ni rek gannaaw séisme ba fa amoon ñi nga xam ni ñooy donateur yi nag ñi ngi daal di xool naka la ñuy financer yenn ci ay construction Ah, noonu la fa amee gannaaw juróom benn weer ba nga xam ne suuf sa daal dina yëngu foofee ca xewum Haïti kii di gouverne lii di gouvernement ba nag ak waa organisation bi ñu wooyee kuréel gi ñu wooyee ONU ñoom nag daal dina ñuy dajaloo niki tey ci ab conférence internationale ngir ñu càmbar ana naka la ñuy def rek daal di financer euh, li nga xamante ni moo di infrastructure yi ca dëkk ba ndaxte rek jàppale Ndeye Marie du euh, toll ci ñetti département fële ca péninsule faree mu dëkk boobee lu toll ci ci euh, junni ak fanweeri dëkk euh, kër yoo xamante ne nii rek dañoo daanu woon waaye tamit lu toll ci junni ak juróom fukk ci ay école ñoom tamit dañoo daanu ñu ne rek loolu la ñuy def daal di xool naka lañuy def rekk ba taxawaatal yooyee kër waaye tamit yoolee école Ndeye Marie Dabo mu ngi noonu dañuy daal di wutali diwaanu Tchad ak chef rebelle bu UFR moom itam daal di nay am mbébétu intervenir ca fa ñu wax wàññe bu ñu sukkandikoo ci ab enregistrement waa ci ab enregistrement sonor naka la ñu ko daal di jëlee moom mi nga xam ne moo jiite jihadiste yi faree ci UFR wuyoo ci turu Timan mi moom nag daal di nay janoo ki nga xamante ni jëwrin bi ñu dénk wàllum xeltu ca dëkk bi ñuy wooyee. Càdd euh, moom nag li ñuy xaarandi ci moom moo di mu woo ki nga xam ne moo di ndaataangoom bi nga xam ne moo faree ca wañe ñu mun a jàppale ñi nga xam ne ñooy dëkk boobee ñu mën a daanee gouvernement transition ba nga xam ne mu ngay lëmbee foofee ca réewum Càdd ndey ma xi daal diwaanu RDC la ñuy wutali ak congolais yi nga xam ne nag daal dinañuy kontaan ci dindum couvre-feu bi Ah, dañoo daal di kontaan ndax rek ni ki altine yi bërki démb gi la ñu daal di rek dindi couvre-feu ba nga xam ne daal di woon nay am ci dëkk bi ñuy wooyee Ituri ak euh, dëkk bi ñuy wooyee Kifu ñoom nag ñaari dëkk yooyee dañ leen rek beroon nga xam ne kenn du dem kenn dikk bu 6 heures bu 6 heures matin jotee euh, jàpp li nga xamante ne nii rek moo di fukki waxtu ci guddi ñoom nag ñu ne rek dañoo daal di kontaan daal di yàkkamte rek ci couvre bi nga xam ne daal di woon nañ koy tëral ci dëkk boobee. Ndeye Marie Série la ñu koy jeexeele ak. Euh, ñeenti téeméeri xale yoo xam ni euh, ay français lañ waaye itam a nga ca xolop ay tension ca nooru dëkk ba. ñoom nag seen bakkan moo daal di nekk ci xottu gerte ki ko xam ne rek moo di onze international bu France euh, ñoom nag daal nañuy xam ne démb di yuuxu wàllu ne rek dañoo bëgg. président wu France bi daal di asir ci li nga xamante ne nii moo xew foofee ci diwaani Syrie ndaxte rek ay doomi France ay xale yu ndaw ndaw la ñu daal di tëcc ci ay kaso ñoom sax ñu jàpp ne rek ñu bëri si ñoom daal di nañuy ñàkk seen bakkan foofee ci prison ba ñu leen tëj mari daa Dabo xibaar biti réew yi jaari na fii buuree di leen ñaanal kendalug jàmm. di ko ñaanal kendalug jàmm moom soxna Roqe di ko jaajëfal ci xibaar yi biti réew yooyu ne skis ñu dikk ak yéen ci xibaar yi tàggat yaram xibaar yi tàggat yaram dañ koy daal di dalal coach Abdoulaye Senghor ziar naa la. delloo ziar soxna Marie. moon nañ la de. ñoo ngi nii rek ñu ngi sant maa leen raw bu baax sant yàlla bu baax naka naka Sadia ça va ñu ngi ci ay ca xibaari tàggat yaram ana lu ci gën a fës ah, mi ngi noonu xabaaru euh, tàggat yaram Ndeye Marou Diaby dañ koy daal euh, euh, si suñu réew nag nga xamante ne gannaaw sax footballu weekend bi nag daal nañu dabbali sax boobule championnat nag ci der ndorteelu semaine bi ñi nag nga xamante ne nag AS Cambérène moom daal dina yoon Tembo ak ASFA nag kenn lakkul caaxi bu Dakar nag benn handball ci dara AS Dagana nag daal di tembo ak SM bu Saint-Louis nag Kaolack FC nag daal di am ndam euh, ci kaw US ngir ngi neew muy euh, match yi nga xamante ni nag moom moo daal di euh, tëjoon journée bi ni mel nag nga xamante ni ci ndorteelu semaine bi lañ ko doon amal bu weesoo loolu dañuy daal di waxandi wàllu football ba tey rek ak barrage bi nga xamante ni nag moo war a dox diggante Sénégal ak Égypte nag mu soxal éliminatoire coupe du monde Qatar 2022 nag ñoom gaynde yu Sénégal sax ñu xam ne ni danañ amal seen regroupement bu njëkk nag fale ca diwaanu euh, Paris la France nag loole nag ñu daal koy euh, jàpp nag euh, fukki fan ñaar fukki fan ci jàpp ñaar fukki fan ak benn ci weeru mars prochain la a nag li nga xamante ne moom mooy diwaanu Paris ngir ñu amal fa nag seen rassemblement bu njëkk nag jëmmal ko ci seen match bi nga xamante ne nag war naa dox seen digganteeg pharaon yu Égypte nag nga xamante ne nag fa la ñuy amal seen tàggatu waaye tamit seen i préparation laata rek ñuy daal xamal li nga xamante mom moy euh, jongante euh, bu euh, njëkk bi nak ñukoy daldi dipé match aré ba nak fale ci diwanu Ker buñ ko fofu rek dañuy daldi waxandi lamb laata rek ñuy joggé suñu gal nak daldi téré ji ci tugal nak ak jongante ba nga xamante mom mo wara dox digënté rëg-rëg ak ki di guuy gi nak muy lamb bu mucc ayib nak ñom ñaari mbëri nak tembe nak ci sen open press ñom ñaari nak ku ci nekk mu ngi daldi di sa morom nak bu xamante guuy gi ci beneen wet gi nak mu ngi bëgg relancer ci li nga xamante ne moom mooy euh, wàllub lamb nag waaye tamit Reug Reug euh, ci beneen wàll gi nga xamante ni amagul benn mbër ba ko daan ci euh, arène nationale bi mu mel ne que rek combat la boo xamante ni dina amal ay njeexintal yu mucc ayib loole nag dinañ ko xamale ni ki dimanche nag mu nar a doon diggante Reug ak guy gi buñ bàyyi ko foofu dañuy waa di wutali tugal nag waxandi championnat européen rawatina nag ligue des ak huitième de finale yi ki ni demb nag jàppale ni sax kii di Paris saint moom moo daal di euh, dóor ñi di waa Real de Madrid benn bal ci dara nag euh, ci beneen wàll ga nag Manchester City moom moo fekk ji nag ñi di waa Sporting Portugal daal di leen euh, mbukki mbukki métti nag juróomi bal ci dara nag seen biir réew nag mu doon jongante yu ñaar yi nga xamante moom la ñu di nemmeeku woon ni ki dem ci huitième de finale yooyu leen ni ki tey nag dañuy daal di wéyandi sax ak Liverpool bu Sadio Mané mi nga xamante ne Bayern de Munich bu 20h jotee muy ñaari jongante yi nga xamante ni moom la ñu daal di eh, nemmeeku ci wàllu eh, Ligue des champions bu weesoo loolu itam eh, ca diwaanu Espagne nag danañ daal di dabaliwaat Liga espagnole bi ak Atlético de Madrid mi nga xamante ni war naa lekk Levante ni bu 18 jotee nag ca Belgique nag jàppale ni Genk moom dana la lekk Mechelen bu 17h45 jotee muy ay jongante yi ñu daal di nemmeeku ni ki tey li ni mel sax mooy ma la xabaaru tàggat yaram cant ngërëm ñeel na la. cant ngërëm ñeel na finale Ligue des Champions euh, Liverpool Paris Saint-Germain. Liverpool euh, Paris Saint-Germain. finale Ligue des Champions. finale Ligue des Champions yeg yeg yegg yeg guñ ci way dal. dama ne pronostic la joxe manam suggestion la joxe. Xamna xamna du dana don lu dana don lu jafé lol lol lool ndax nak merengue yi guñ ci match bi dé. 13 <laughs> Ligue des Champions lañ am. treize ñoo ëppale Ligue des Champions. kon nag match retour bi sa promet en tout cas. ah kon baax na bañ àgg ca incha allah di ko jaajëfal baax a baax moom coach Abdoulaye Senghor ci xibaar yi tàggat yaram nees kiis ñu ak see génn ci ponk bu mujj bi. xibaar yi ci suñu Kër FM. lii ëttu yëglekaay yi xëy tey dañ ci ànd ak Mouhamadou Niakh Cissé. maa ngi laa nuyu. waaye nga am jàmm. sant gërëm yàlla bu baax. waaye sañ nga tey de. <laughs> ma bañ a wax la Saliou Ciss waxoon rek laataa maa dugg <laughs> école de football laa mën teg dën wante laataa maa judd laa mën a sañ. <laughs> baax na ay dal nag jàmm ah, yéen i kaay yi dañ koy xëy ni ki tey ah, mbirub ki nga xamante ne moom moo di Bamba Fall Bamba Fall nga xamante ni yéen yu bari ni ki tey daal dinañ koy song lu ci mel ni ah, yéen bi di lii quotidien naan ñu Bamba Fall jamono ji daal dinañ koy tëmbal ci soosu njiitu réew mi Macky Sall moom moomee jamono ji bokk na ci eh, nit ñi nga xamante ni njiitu réew mi

Bamba naan ñu je fu yoon kenn new ci li ma bëgg dul lenn lu dul ndama Medina te li nu mel bu ma ko defee defaluma ko kenn ku dul Medina mën a jëm ca kanam wala boog boppam la ko defal ak lu mu ci mën ci doon moom moomee Bamba Fall mi ngi dëggali boppam keneen koo mayul dina fekk ji Bamba Fall ci rangu njiitu réew mi Macky Sall gannaaw ba nga xamante ni daal dina am mburoog soow fële sa diwaanu Thiès du kenn ku dul Bougane Gueye Dany yéenekaay bi di critique daal di ci xëy naan ñu jamono ji moom Bougane gee Dany mu ngi ci viseuru njiitu réew mi Macky Sall 24 heures noonu lañ ko xamale ak direct news naan ñu gannaaw Bamba Fall Bougane dani Dany boo mayul dina song kii di njiitu réew mi Macky Sall mu mel ni que ni njiitu réew mi Macky Sall sax jafe-jafe yi nga xamante ni daal dina koy dund ci mbirub transhumance boobaak léegi fàttewu ko ndax gannaaw ba nga xamante ni daal dinay amal ay transhumance élection locale yi ñu daal di ko ci jàpp wulli ko wulli nooy nepp naam sax su fekkee ne ñoom ñooñee mouvance présidentielle bi am nañ doole lool dañ leen dóor ci barab yu bari yéenekaay bi di tribune naan ñu njiitu réew Macky Sall daal loolee daf kaa fàtte ani nag lan moo tax ba muy jël Bamba Fall di ko aligné ci ay ci jamono joo xamante ni ñenn ñu nekk ci Benno Bokk Yaakaar daal dinañ ñaawlu bu baax baax a baax transhumance bi nga xamante ni moom Bamba Fall def na ko mu mel ni que ni jamono jii ka ña ñii nga xamante ni ñoom ñoo fare ci langue politique ñu ci bari dañoo jeexal jom kersa ak fula ak fayda mbala sax ngor mu mel ni que ne dafa jeex ci ñoom a leneen loo xamante ni daanaka jeexul ñu ngi ciy bu bees bés bi le jour daal dina ci ñëwaat ñeel élection législative yi nga xamante ni moom lañ dëgmal ak révision exceptionnelle ba liste électorale yi daal dinañu ibbi ba fanweeri fan ak benn ci weeru mars lañ koy amoon mu mel ni que ni jàngat war nañ ko ci am ci ay leçon yu yees yeneen njàngat ñu ngi koy am ci wàllum njàng mekk njàngale mi yéenekaay bi di le vrai journal di ci ñëwaat ci syndicaliste syndicat enseignants yi nga xamante ni ñoom ñoo ñee jamono ji ils sont impuissants face à l'état du Sénégal ñoom ñoo ñee boo mayul daañu foru new naam sax su fekkee ne jamono ji état bi mi ngi leen di neexal di leen ban barajale di leen raayaka nemmali jamono ji boo mayul lam leen joxoon yëpp dina ko perte direct news di si ñëwaat ne booy xool sax ñii di waa g seen marche bañ bëggoon amal fees ca Sigicoor dañ kaa mujjee dàq amaluñ ko ci biir yéenekaay bi di Vox Populi gànn seen di inspecteur d'académie bu Géejawaay Pikine mi xam xamle ne situation bi nu mel euh, doonu lu aram alarmante te sérieuxwul noone ndax mën nañ kaa dabuwaat indiwaat mbir mi ngir njàng meeg mi gën a ñoŋ loolee sax moom moo tax ci biir yéenekaay bi di Sud Quotidien ñi nga xamante ni ñoom ñoo di euh, ñi nga xamante ni ñoom ñoo di euh, société civile bi daal di ciy dugg ñoom ñoo ñee di sàkku ci état bi ak ñii di syndicat d'enseignants yi ñu jël seen matuwaay dugalaat mbir mi indiwaat seen xel ngir yi mën a demaat jàng ñeneen ñoo xamante ni démb ànduñoo ak seen xel ndax dañ leen a gaase lacrymogène ba seen bët yi xonq cur waaye itamit ña ca des nooy moom mënuñ ko ña ca des yi tamit ñu jàpp leen dugal leen ci giri bi du ñenn ñu dul ASP yi ñoom ñooñee nga xamante ne xaritu policiers la woon léeg-léeg sax ñoom ñoo leen doon tegali ataaya démb policiers yi daal dinañ leen di jàmm ndax ci seen marché gi nga xamante ni ñu ngi ko doon amal ci mbedd mi ñoom ñooñee di policiers yi dañ leen jàpp yu métti ñeneen ñi moom ñu daal di leen di mujjee jàpp yéenikaay yi di ci ñëwaat naan ñu démb kañ mbir mi daa tàng lool ca diwaanu ndakaaru Kaolack Sikicoor ba ci sax Thiès ndax ñi nga xam te ni ñoom ñoo di ASP yi may leen dara 24 heures ci la xëy ak yéenekaay bi di La Tribune bés bi le jour desul ginnaaw keneen ku desul ginnaaw beneen yéenekaay moom moo di Libération ci faatu ki nga xam te ni moom euh, moom mooy jaaykatu or boobu di Ndongo Gueye moom moomee gannaaw ba nga xam te ni daal dinay réer niki samedi gi ñu fekk ko ci biir ndaamaaram ca banquette ba ca ginnaaw boo xam ni bu jéggi dayoo la dugal ko ci ab sachet plastique maanaam ci mbuus takk loxo yeeg tànk yi tëral ko ci moom moomee ndongo faat gañ ko faat yéenikaay bi di libération mi ngi ciy ñëwaat ak nañ ko bayone yeew loxo yi ba ci sax blessure yu profonde yi nga xamante ni fekk nañ ko ci lii di jëmmam ji moom moomee niki fukki fan ak ñett ci weeru février lañ ko gësu gëjoon teggat wante rek yéenikaay bi mi ñuy xamal ni police daal dinañuy ibbi ab enquête ba waral ñu teg ci yoxo benn nit boo xamante ni moom moo doon premier suspect ñeneen ñoo xamante ni teg nañ leen yoxo ñu ngi ci biir yéenekaay bi di euh, l'observateur mu ñuy xamal ne sa diwaanu Thiès ab mbir mu jéggi dayo moom moo fa am ndax ki nga xamante ni moom moo di maçon bi la ko waroon du leen lu dul demi liggéey tabaxi li nga xamante ni moom moo di kër ak rëdd palang ak defar euh, defaraat yenn ci bâtiment yi wante maçon bi deful loolu leneen lum def du lenn lu dul ti ab gone di ko wiyoole noonee euh, ñu mujjee teg loxo moom moomee maçon xaritam bi ñoom ñoo doon amal li nu mel te luñ ko doon amal ci ab mineur lañ ko doon def maanaam gone goo xamante ni ay atam tollul ci fukk ak juróom-ñett dañ ko doon wiyoole seet ko ba gone gi jamono ji mënul sax jug sekki tànkam mu mel ni que ni loolu moom moo ndar képp ëttu yéenikaay yi Ndeye Marie Dabo cant na ngërëm yàlla ko moom Mouhamadou Junior Cissé ci li ëtt yëglekaay yi xëy tey nga xam ni moo daal di yëkkati jotaayu euh, xibaar yi ci euh, biir Sunuker FM ci 3W point sunuker FM point com des leen di woy ak suñu programme ci kanam tuuti daa ngeen am l'info autrement ak euh, ki nga xam ni mooy Ndiawax Diop waaye itam jaajëfal Eli Birahim Ka ci technique bi di leen ñaanal kendalu jàmm di ko sàkku ci yéen jërë ngeen jëf.